itam benn animatrice la boo xamante ni bi mu nekkee ci métier bi yàgg na euh, donc euh, comme ni ñu ko xamee jaar-jaar bi dinaa ci ñëwaat tuuti donc def naa euh, sama circuit scolaire dem ba lycée Malick Sy après bien sûr le bac ma def une formation boo xamante ni ci wàllu animation la ak journalisme am sama diplôme international de présentatrice télé rajo sama école euh, élémentaire euh, bu may jàngi donc nekkoon naa koo xamante ni euh, aw ma woon aw ma woon maanaam comme ni ma ni ma nit ñi xamee ni noonu laa meloon calme et tout bugguma histoire donc amoon naa sama benn xarit boo xamante ni moom laa doon neexal ku ma tooñ rek moom mu defanteeg yow. non dox loolu mun ñu ko tuddee tàppet parce que xam nga tàppet mooy koo xamante ni dañ koy dóor muy daw man balaa dóor bee yegg laa koy lijjanti c'est-à-dire du ma xeex du ma xuloo <laughs> xanaa booboo gën a neex. <laughs> français j'adorais le français et puis euh, voilà donc euh, matière bi nga xamante ni moom laa gënoon contre laajoo ko mais dinaa la ko wax mooy mathématique j'étais très nulle en maths. lii lycée Malick Sy aw ma fa dara lu ma parce que dañ ma choyé woon déjà de trop professeurs yi samay samay samay xarit la ñu woon ñeneen ak ñeneen donc xam nga euh, deretu artiste bi foofu la ma njëkkee dugg donc da ngay déjà am ay fans da nekkoo télé nekkoo rajo. lycée Malick Sy histoire euh, bu ma gën a marqué parce que affaire yi nag comme dafa yàgg. donc lu ci gën a bëri histoire yu me yoo fa dund loo xamante ne lu la xaw a jaaxal la et tout ça man daal dund bi ma fa doon nekk daal dundoon naa fa loo xamante ne nii ba léegi dafa ma dafa ma dafa ma marqué loo xamante ne peut-être benn lay doon te duma ko fàtte mooy bu ñu joxee suñu résultat yi au bac on avait deux élèves yoo xamante ne ñoo defandoo bac ñoo bokk ndey ak baay et bi ñu joxee résultat yi ba pare comme lycée Malick si dafa amoon tali bu nekk foofu ñuy jéggi par benn camion. kii leen donc ce qui veut dire que année boobu ñu am bac yëpp presque defuñu arrosage parce que noonu la ñu la ñu génnee àdduna et puis ñoom ñaar ñëpp donc mu nekk loo xamante ni ñun ñi fa jaar année boobu euh, kenn fàttewu ko ko lu metti la woon defuñu arrosage amul woon fête amul baal amul dara. ci animatrice ni ma ci duggee mooy euh, sama amoon sama benn cousine boo xamante ne da doon jaay euh, waa RTS ay yére da doon dem jox ki tout saa di jaay boobu bëreegul sax noonu mais euh, man dama doon ñëw sama kër tonton Aliou Centenaire la nekkoon. donc à chaque fois dama doon ñëw vacances su ma ñëwee vacance wala ma ñëw benn weekend wala dara suy dem di jaay RTS damay ànd ak moom mais comme dama sopp donc man su ma demee ñi nga xamante ne dama leen doon gis télévision ay tout ça dama leen doon bëgg di côtoyer ku ci mel ni ay Michael ma ay ñoom jamono Betty Bao elle est décédée moom aussi génn na àdduna ñu koy ñaanal ak euh, ñoom yaa xam caam ay ñoom Fat Sakho waaw voilà donc ñoo xamante ne danga leen doon dégg ci rajo bi di leen gis ci télé bi nga jékki-jékki dugg benn milieu fekk leen fa ñoom ñëpp donc euh, ma jéem leen a côtoyer à chaque fois ku ma nuyu rek nga ne ma yow artiste nga sa baat bi dafa neex donc ma ne leen man de bëgg naa bon bëgguma woon def rajo parce que li ma opté woon mooy déjà comme dama. defoon nii nit yi dañ doon wax naan kii bu nekkul secrétaire ci benn direction dina nekk hôtesse de l'air parce que dama bëggoon ay talon bëgg ay affaire bëgg defaru et tout ça voilà shop euh, chic quoi chic <laughs> voilà ci ci jamono jooj donc euh, voilà moo nekkoon sama passion mais ku nekk da doon wax naan ma sa baat bi boo woyulee di nga di nga def animation parce que sa baat bi macha allah et tout ça donc ci noonu laa fekk su may dugg RTS fekk ñu def ay test pour téléspeakerine et donc man ma dem def test bi mais yàlla def bi ma fa demee dama fa fekk euh, benn animateur boo xamante ne mu ne noonu noo kii kenn du ko jël baat bi dafa sew non non non baat bi dafa sew baat bi dafa kii donc loolu sama m'a ma ne nag euh, bon euh, dëkk bi du loo xamante ne da nga ko commencé def ci sa xol rek bu ñu ne la bàyyi ko da nga koy bàyyi du ma ko bàyyi et puis dama bàyyi ba ñëpp dem ma ko ma ne ko baat bu sew mooy lan. parce que ku nekk xale sa baat dina sew c'est très normal te jigéen mënul am baat bu diis mu ne ma non donc il faut nga travailler ko ma ne ko naka laa koy travailler mu ne ma non il faut nga travailler ko toj sa baat ma ne ko mais man du ma woykat sama baat ni muy def nii boo mun mënuma mën a comprendre par exemple tey booy xool kuy woy te xaw ma ci woon dara ma ne ko boo gisee koo xamante ne nii day génnee ay affaire mooy ñi ñiy defar son yeeg yooyu ma ne ko ñooñu mën nañu rek le baat ñoo lay may baas ñoo lay may lii ak lii ak lii ci noonu laa ne man kooku dama kay wan ni ko mën naa ko. moo tax bu ma déggee ñu naan RTS école la école la parce que man la ma fa jàngee parce que foofu laa tojee sama xol foofu lañu ma waxee ni mënoo may jooy à l'antenne ba ba ba pare reprendre ñu ne ma reprendre ñëpp taxaw directeur yëpp taxaw ñu ne ma reprendre ma reprendre sama rangoo ñi di sotteeku te terewul damay wax ñu ne ma non il faut nga nga wax da ngay wax mënoo dara il faut da ngay jàng da ngay lii ma fompaat rangooñ yi commencé waat tu mu nekk expérience boo xamante ni man dama koy dama koy sant yàlla. Youssou Ndour mu àndoon ak Boubacar et tout di dem côté ay Touba ay affaire yooyu ci sama li ma dëkki léegi mu ñu dégg may wax ci à la rajo Youssou Ndour ne kii kan la ñu ne ñaatam bala tudd mu ne Boubacar est-ce que doo ko indi boobu fekk dégg naa def nañ ay ay test fi ñu bëri pour ku war a remplacer Eva Mbaye donc li yàlla di def rek ma ñëw premier jour bi ma ñëwee le lendemain ou deux jours après lañ ma signé contrat boo wàccee da ngay taxaw ci tali bi yenn saay boobu oto yi commencé wul ñu di ma jël si deux heures du matin ma taxaw pour jël taxi jël benn taxi taxi bi continuer ak man foo jëm mu ne ma fu ma neex laa yóbbu di dem di dem yoonam di dem yoonam. ma jékki-jékki ànd ak sama sang froid jël sama téléphone dama kenn sama benn xarit boo xamante ne mi ngi woon ci police bi au passage mi ngi sax commissaire la léegi may jël sama téléphone rek commissaire diw commencé wax waaw oto bi temps parce que guddi bu ma ko doon jël damay jël chiffre bi ci côté bi laa doon jël numéro bi ma ne ko numéro tel moo ma yore ñi ngi jëm tem tem tem nee naa ko foo jëm rek mu ne wàccee ma ci corniche bi. jour boobu euh, defe naa est-ce que liggéeyewaat naa une semaine ci lañ ma changé indiwaat ma ci journée loolu rek mënoo ko rek ma ne mën naa ko mën naa ko nag jaayante la boole ko sama lépp noonu la nag sa diir tey man bu ma demee ba dugg ci benn affaire nga ne ma du loolu dinaa def le tout ba muy loolu c'est-à-dire su ma su ma su ma su ma su ma demee ba nga xamante ne ni tey jii ci àdduna amatuma loo xamante ni tey dama koy dama koy dama koy dama koy wane mooy nga ñëw tey nga ne ma ñaatam tey jii daal non tey daal lii moom vraiment je sais que ni munoo ko te muy sama domaine dinaa fexe ba bu ma ko defee tey ñu ne gongo ñu ne waaw sama côté rajo expérience rajo je pense que foofu la commencé parce que gis naa ay jigéen yoo xamante ne ñoo ma mag ñu ngi ko doon def nekk ci. comme nit ñi nee nañ j'avais la voix fallait que ma jàng ma ne nag duma ma foofu parce que tey ni ngay mën a imposer woo tey mooy nga ñëw ci benn milieu am ci diplôme déjà ci laa ñëw présenté wu ci benn école de formation bu nekk fii à Dakar par correspondance ma def sama formation def sama li nga xamante ne moom laa war a am ba am sama diplôme présenter ko et puis euh, ñu doog a mën a xam ne kii kat tey ji te jàng mi pareeguma ba léegi parce que présentation présentation scénique ba léegi maa ngi koy jàng booy xool affaire yi du jeex à chaque fois am na loo ci war a dolli à chaque fois am na loo ci war a dolli mais c'est domage que bon Sénégal euh, bon euh, du ma ni sax métier la boo xamante ne ni ku dafa am ñu ci war ñu ko war a def ak ñu ko warul def mais cest à ku nekk li nga xamante ne yi loolu la yàlla teg sa kanam nga war ko def loolu dafa am man te tey parce que am na métier yoo xam ne soo ma ci bëggoon xëcc tey dangay wax ba sonn man la yée defal ndànk boobu man mëneewu ma ko woowal diw. parce que diw boobu moom moom moom métier boobu c'est-à-dire tey man jóguma xëcciw ci dara loolu laa commencé comme liggéey loolu laa continuer ba léegi te communication dafa vaste je peux faire pas mal de choses même bu dul télé même bu dul rajo je peux faire autre chose voilà milieu ba ko commencé ba léegi am na ay difficulté am na am na am na ay bànneex may booy xool bànneex bi mu ëpp li tax mu ëpp mooy man li ma nekk dama ko bëgg cest à man damay feebar sax nekk studio liggéey ba wàcc su ma wàccee ba dugg sama oto feebar ma pare su may duggaat oto rek ci oto bi ba demaat sama kër commencé waat feebar donc ce qu'on appelle l'amour du métier donc tey booy xool expérience bi ma ci am noonu permettre na ma tey jii su ma su ma amee sax lu ma naqadi loo xamante ni gis naa ko ci saa daf may surmonter parce que fi may gis nii nag euh, du ma ni dama dama dëgër mais akama remercier yéen waa dakarnet.com di encourager émission bi aussi parce que euh, dafa nekk émission boo xamante ne nii je pense que ñu bëri war nañu war nañu di ko seetaan parce que je pense que tey jii li tax ngeen def ko euh, yéen yéen a ko xam mais li ci biir c'est important parce que mën na jàngal. ay nit mën na wàññi nit également mën na aussi nit jël exemple ci benn nit donc loolu dama leen ci encourager déjà man sama nit bu ndaw bi ngeen jël ma dugal ma ci donc honneur la pour moi et je vous remercie di leen encourager yow.